ak El Hadj Ousseynou Ndiaye da leen jàmm ci xibaar yéen ni kay njiitu xam ne rek moom njiitu réew mi Macky daal di sàkku nag ngir daal wàccee doxal ak yoon nga xam ne rek defuñu seen liggéey ngir ñu daal leen di daan ci yéenekaay bi Pape Demba bi tey ne ko loolee jërun ñetti directeur dàq nañ leen ak benn service ñoom kay jàpp nañu tey na ko ci topp ki jamono jooje nga xam ne rek moom lañu dënmal ci la war a door lépp loo xam ne rek jëm na ci campagne gi yéenekaay gi def ak saytu ak jàng ci lépp loo xam ne rek jëm na ci juróom-ñetti coalition yi nga xam ne rek am na waaye tamit seen ak liggéey la tribune yéen kay di ñu ci lépp ak moom moo di Bamba ak cong yi nga moom la jege na ko tey nag daaloog ne mu Ousmane Sonko ñu daal di koy ci lépp loo xam ne rek jëm na

yéenekaay du ñu xam Boris Johnson bu Angleterre jox na jox na yenn ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo nekkee ci Afrique yéenekaay gi du ñu xam maanaam daal ñu tuumaal la nga tekki sa ndombal tànk ba mu leer Walf Fadjri yéenekaay du ñu xam ne kay du ñu xam tabaski ren gi kay boo mutul dina metti lool ci jëm ci wàllu góorgóorlu xar cher na ak yeneen yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo yéenekaay kay gannaaw ne xamal Abdourahmane Mbacké mi nga xam ne rek moo Arafat. El Hadj Ousseynou Ndiaye.